ñu sant yàlla bu baax a baax rafetlu li nga xamante ni moom mooy lancement bi ñu def démb ci phase nationale yi fii ci Mbacké mu nekk phase nationale 2024 ñu sant bu baax gërëm kilifa yi nga xamante ni ñëwoon nañu ci lancement bi bokk na ci Bakary Sarr bi nga xamante ni moo yore wàllu caada te nga xamante ni moom la ministère des sports de la culture ak de la jeunesse yebaloon mu ñëw ci turu gouvernement bi ak ñi mu àndal ñu jaajëfal bu baax Serigne Cheikh Thioro Mbacke mi nga xamante ni moom la ñu bàyyalee phase nationale yeneen jii nii ci 2024 ñu lu itam teewaayu Abdoulaye Fall mi nga xam ni moom mooy trésorier wu Sénégal waaye moom moo yor itam ligue de football bu Diourbel ñu gërëmaale ci nag autorités yi nga xamante ni yëpp ñoo nekk ci région bi muy gouverneur muy préfet muy maire yi ñëpp ñu sant leen gërëm leen bu baax a baax jaajëfal leen démb nag bi ñuy lancé loolu ñuy woowee phase nationale 2024 bu Diourbel ne mekk nañ si bu baax a baax ne nit ñi bari nañu lool takku nañu lool bu mu jur sax lee lekk ay jafe-jafe ku fa nekkoon seetlu nga ni tribune yi teel nañoo fees nit ñi bari woon nañu am nañu mënul woon dugg dem na sax ba mbiru kaaraange dugg ci balkaat yi dugg ci ba mu naroon jur musiba loolu nag mu am ñaari jàngat yu ñu ci def ñu gis ne fa ñuy footballee ci stade bi stade Iba Gueye xaw naa tuuti pour ñu boole ñeenti match supporter yëpp ñëwandoo benn yoon stade bi day fees kenn du leen mën a contenir mu nekk nga jafe-jafe loolu tax na tey ci suba ONCAV dajee waxtaan daal di xool ne loolu kat jafe-jafe la naka lañ koy saafara ñu ne nañ xool ñaari mbir benn bi mooy ndax nekkul li ñu boole. supporteurs yu ñeenti juróom-ñetti équipe yëpp ñu dajandoo benn yoon mooy nekk jafe-jafe bi ku nañ kon nañu ko saafara nañu xaaj léegi programme bi ñaari xaaj xaaj bi mooy incha allah bu subaa di dimanche nekk le premier su ma juumul mooy le premier septembre dañuy jouer ñaari match bëccëg ñaari match guddi ñaari match bëccëg yi dafay commencer quinze heures trois heures lay commencer. su 3 heures jotee ñu commencé benn première heure deuxième heure bi ñu commencé ko 17 heures mooy cinq heures bu ñu nee ba 19 heures match yi jeex ñun ñëpp ñu dem. maanaam ñu waroon jouer ñeenti équipe yooyu ñibbi nañu ñi ko waroon organiser dem nañu bu ñu toogee ba 21 heures ñu daal di dellu si waat organiser waat ñaari match ñooñu seen i yi ñëw ak seen i organisateurs ñëw nga xam ni ñu tase foofu duñ fa fekkante muy nekk ay gàllankoor ndax kat bëgg nañoo jouer nawetaan lool nag bëgg nañu ñëpp gis seen bopp ci li ñuy def waaye bu dee day indi gàllankoor day indi ay jafe-jafe ba nara a jur fitna loolu ñaan ñu ko yàlla ñu ne kon nañu fàggandiku pour que loolu balaa muy am ñu jël ay disposition disposition yooyu mooy yu bees ci changement calendrier bi yéen presse bi ngeen gunge ñu si loolu bu baax a baax ndaxte nit ñi bu ñu amul information bi dañuy faral di ñëwandoo am ñoo xam ne seen équipe dafa joué guddi ñu ñëw bëccëg nu ñu xam bu baax a baax kan mooy joué bëccëg ak kan mooy joué guddi donc loolu mooy innovation bu bees bi par rapport ak li nga xamante ni moom la def ci jël kii bi pour mën a mën a mën a mën a dem jàpp si mbir mi njortu naa ne programme bi di dinañ si ñëwaat incha allah bu suba dinañ wax bu baax suba ñan ñooy joué 15 euh, heures. jëm 17h ak ñan ñooy joué di 21h euh, jëm. une heure du matin wala minuit donc incha allah donc loolu moo nekk li nga xamante ni lii secrétaire général bu ngeen yenn questions yi dina si ñëw président ñi ngi mën na si répondre am question yoo xamante ni ñun mën nañ si répondre wala président ODCAV bi répondre si waaye daal li ñu jàpp mooy organe bu nekk su mënee poser benn question question bu ñu posé jarul ñu si revenir daal comme ça ñu partagé pour que nit ñi xam ne daal décision bi mooy léegi dañuy jouer en deux parties bëccëg bi ak gën nañ bu baax laaj bi sécurité bi président wax na ko nemmeeku bu dee bu mooy ne wàllu kaaraange bi desoon na ndax takk dari dañoo néewoon démb bu débordement amoon musiba am kon lu ne mën na faa xew moo tax bi ñu nattee mbir mi xayma ko dañu ne daañu waxtaan ak ñi nga xamante ne ñoo yor wàllu kaaraange ndax ñoom loolu mooy seen liggéey nag ñu loolu suñu liggéey daa daañu leen wax wax leen li xew lii la ñaan leen itam ñu yokk takk der bu baax a baax a baax a baax ndax nag ñëw ci stade seetaan ci dafa laaj nga nekk sécurité bu loolu amul musiba mën na am te loolu kenn ñaanu ko yàlla am na ku wax ni itam ci yoon wi pour ñëw ci stade bi xaw naa jafe xaw naa lëndëm te léeg-léeg ñu guddee ñu ñaan aussi takk der yi ñu yokk kaaraange ci yoon woowu pour mën a def ay loolu ñuy woowee patrouille pour mën a surveiller waale yoon bi pour que du bay am benn gàllankoor ci doomu aadama yi parce que nag ñun ONCAV dañoo nekk di ko ñun discipline publique kon nit ñi def ñu ñor ci itam ñu war a toppatoo loolu ni Sénégal yëpp ñoo am problème jumtukaay wàllu surtout sport waaye ku ne xam na nañ tey stade bi stade Iba Gueye bi ni mu mel mënoon naa am tribune bu gën a rëy bi bu gën a yaatu wóor sax am tribune bu yaatu est-ce que nekkul sax ne dañu war a def plaidoyer pour Sénégal gi yëpp département yëpp commune yëpp am ay stade yu mag yu mucc ayib yu mën a contenir public bu toll ne comme bi fi amoon démb loolu nag daañu ko porter wax ko ñi ñu ko war a wax fexe ba ñëpp dégg ko itam pour que lu mel nii ñu fexe ba yaatal ko ba ñëpp am stade bu baax waaye bu mag. bu am tribune yu normal am place yu doy nga xam ne ku ñëw di nga mun ñëw seetaan sans problème te am benn jafe-jafe leneen li mooy loolu ñu tuddee évacuation moom noonu lañ ko tuddee yéen yéen tubaab yi yéen koy woowee évacuation waaw ñun dañoo ne dañuy jouer ñaari match ci bëccëg ñaari match yi jeex na 19 heures ñun ñibbi nañ dem nañu kon ku toog ci stade ba yaa fa toog day am ñeneen ñuy ñëw vingt une heures pour beneen manifestation loolu leneen la encore donc amaana sax ñun du ñu évacuer kenn waaye ñun suñu manifestation jeex na ñibbi nañu dix neuf heures vingt une heures bu jotee ñeneen ñooy ñëwaat beneen manifestation donc loolu dafay yomb maanaam manifestation bi amoon quinze heures ba dix neuf heures dafa jeex nit ñu tëj ñibbi ñëpp dellu ñibbi ñu tëj dem ñibbi parce que soo xool organisation bi ay poule la te pour bu nekk ak ay responsable am donc noonu la ñu koy organiser incha allah ba da am chevauchement sooy xool deux heures de temps la xanaa nit doo ne da ñëw su fay benn billet bu téeméer match bi jeex ñaar yëpp jeex ba 19 nga ne xaaral ma toog jëbale 21 heures ah, laa évacuer yaa war a évacuer bopp day ndax match la nga fayoon téeméer boobu moom jeex na leneen la du fay bi mais organisation bi ak sécurité bi parce que suñu ko defeewul noonu day jéggi dayoo ba kenn du ko attan te ku ne xam na lu mel ni comme phase nationale ak mbooloo mi muy dajale dajale fukki fukki ak ñeenti région yëpp dajale les 46 départements du Sénégal ASC yi bëri loolu mot ay fanweer jëm kaw loolu nag boo deful attention soo juumee ci organisation bi mën na répercuté wu jur leneen loo xamante ni xaarul ko woon loolu moo tax daañu def suñu kéemtalaay kàttan ba nit ñi ñëw ci jàmm seetaan si jàmm mu am kaaraange ñëpp ñibbi si jàmm salaamaaleykum wa rahmatulah.